I'll be. bisimilah barke borom Tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu ak te di leen baal ak ginnaaw bi ñu suñu borom julli ci yonent bi di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim suñu borom may ñu saxaadatu daare nuyu ak suñuy ziyaar dañ ciy jiital jëwriñi Xaadim Rasul di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér balum naal yéena ko liggéeyal sëriñ bi suñu borom kattanal ko mu defe nu koy njort non lañuy ziare Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacke khalifa Cheikh Mouhamadul mustapha Mbacke waaye diko ziar Serigne Cheikh Mbacke Madina khalifa Serigne Mbacke Madina mi nga xamné tay ji kërëm lañu nek fi ci 30 bi aju ci daru Xuddoos bo len gisé mbolo mi moy mbooleem mbolo mi nga xamné dañu fassantiko ci ay daïra aju ci kër serigne Mbacke Madina waaye lekkeliko ci gën ak bum muy islaahu daarayni nek fi ci réew mi ak bitim réew. ngir nag liggéeyal Serigne Mbacké Madina tey nag ñuy amal ab ziar bu am solo boo xam ne nii at mu jot dañ koy amal bu ne suba la màggalu Serigne Mbacké Madina moo tax fii ci 30 bi gis ngeen bokki taalibe yi ñu ngi def ay délégation yu takku bàyyi ko fu nekk ñëw ngir teewe ziar boobu ci kanam Serigne Cheikh Mbacké Madina xalifa Serigne Mbacké Madina waaye ñu nemmee ko fi itam ay kilifa kilifa yi nag mën nañ cee jiital ñi nga xam ne dañooy aju ci njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha ñoom ñëpp teew nañ fi wala ñu yónnee fi ay délégation ngir nag samb noonu loolu nga xam ne ni moom la fi Cheikhul Khadim bàyyi woon Serigne Modou Moustapha Mbacke waxan leen ko mooy kër gi yëpp doon benn loolu gis nañ ko tey jii gis nañ fi njaboot gépp kon ci kanam tuuti euh, yéen a ngi dégg jànkatu xas day teew nañ ubbee nañ ko alxuraanul karim daayira yaa ngi teew ci kanam tuuti Serigne Cheikh dina génn euh, mbokki taalibe yi yeesalaat seen ak jaayante yeesalaat seen ak njébbal dundalaak ruy jébbal seen addiya déglu Serigne bi mu soññ leen ñaaxaat leen nag ñu daal di jëm waajal màggaluk Serigne Mbacke Madina di ñaan yàgg fee fekk Serigne Cheikh kon ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen ci ziar bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy amal fii ci euh, Touba 30 bi ci Daaru Khoudous ci kanam Serigne Cheikh Mbacke Madina yàlla na fi yàgg loolu te nañ ko waxee woon léegi rek ñoo ngi fii ci biir euh, kër Serigne Cheikh Mbacké Madina sëñ Pape Diagne tey ngeen euh, bàyyeekoo ci yéen Jolof def délégation bu takku ñëw teewe ci ziar bi tey ji teewaayu ci yéen Jolof fii ci kër sañ Mbàkke Madina lan lay mandargaal ahousubillah bisimilah inna waliyallah barke borom Tuuba euh, jërëjëf sëñ Abdoulaye ñu ngi dolli di santaat yàlla suñu borom bu baax euh, bam ñu mayee tawféex ñu mën a teew si ci bis bi euh, teew fi waa ci yéen Jolof gépp ànd ak suñu naataango sëñ Moustapha Ndiaye ak sëñ Mor Ndiaye teewaayu ci yéen Jolof ci bis bi moom lu war mën a nekk la ndax kenn ku ne xam na ne Ceyeen Jolof moom Ceyeenug sëñ Mbàkke Madina la euh, te xam nañ itam taxawaay ba fa amoon sëñ Mbàkke Madina itam nekkoon suñ Mbàkke Madina ñëpp euh, nekkoon koo xamante ni roy waay woon ci anam yëpp euh, buñ demee ba di ko taxawal bis bu mel nii bu am solo nii jaadu na ñëpp teew ji waaye rawatina waaye Ceyeen Jolof kenn waru leen fi jiitu te kenn waru leen fi ëpp taxawaay itam loolu waraloon rek suñu teewaay ñu ànd koog délégation sëñ Moustapha Ndiaye sëñ Mor Ndiaye ak mboolem ñi ñu ko àndal ñëpp rek di ñaan yàlla suñu borom may ñu ñu fekk koy at yu ci bàkk Seexul te lépp lu ñaan ci alxuraan ci xasida yàlla suñu borom nangu ko te dolli ko ci euh, léeri sëñ Mbàkke Madina ñu ñaan sëñ Cheikh Bambaali bi fi nekkal suñu borom dolli guddal aw fanam yokk kattanam gën koo dëgëral ci Mbàkke Cheikh Xadim waaye ñu gën a jàppaat gën a góorgóorluwaat euh, ndax ñun kenn ëpp ñu ab loolu moom luñ lu ñu wér la kon nañ leen di soññaat ñu gën a góorgóorluwaat ci liggéey bi xam ne am nañ ci cir bu baax a baax a baax mel na na sax lépp ñoom ñooy borom lu ci waay def rek ñoom nga ko dimbalee waaye lépp ñoom ñooy borom kon nañ ci gën a góorgóorluwaat yokkaat ci sëñ pas-pas te gën cee taxawaat a baax borom def ci ndimbal ci bàkki kon ba tey ñu ngi ànd ak yéen rek ci mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi aju ci islaahu daaray ni ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi taxaw ak section bu Louga Serigne Mbacke Mbodj kon ginnaaw ziar yi ngeen bàyyi ko Louga bànqaas woo ci islaahu daare ni ñëw teewaat ziar bu am solo bi nga xam ne nii at mu jot yéen a ngi koy amal ci kanam Serigne Cheikh Mbacke màddina ngir waajale ko màggal gu tedd gi. Euh, tey jii teewaay bi kàddooy soññ yi ak yëg-yëg yi yéen waa Louga lan ngeen di wax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. di siyaare sëñ Mountakha di ko ñaanal ak wér ak euh, mu yàgg fi lool di ko ñaanal si Amadou Mokhtar. ak suñu Cheikh Bambali mi nga xam ne moo jiite njabootu suñu Mbàkke Madina ñëpp ñoo ngi ñoo ngi siyaare njabootu suñu Mbàkke Madina ñëpp di siyaare suñ mag ñi nga xam ne ñoo gitt liggéey bi tàmbale ci uh, ngi siyaare ñëpp di jottali tim nu yóbbu waa Louga yëpp ak siyaare waa Louga yëpp di tàmbale suñu Papa Dula mi nga xam ne suñu waajur la jiite liggéey bi àndoon suñu waajur nekk fi ba lay nekk fi ba léegi di di doxal lépp ñu ànd ko googu ànd ko waa ndax euh, bis bi moom lañ am ndax euh, bis yëpp dañ ko bokk ak ñëpp ñu màggul dara doo ak màggalu tubaab lu moo doon waaye bisu bisub sëñ Mbàkke Madina njabootu sëñ Mbàkke Madina ñoom ñoo ñu ma ko moom te yaakaaraati noonu la ko sëñ bi waxee woon ni bis bi taal bi ñoo koy def te te xam xam nañ xam na xam nañ waxtu bi te loolu ba léegi ñi ci lañ fekk suñu waajur ci la ci ci lañ ci lañ nekk nii di di ñaan yàlla rek li suñu borom digle ci yoonam ziar suñu borom defal defal ñu ko te defal ko mbokki taalibe yëpp ñi fi ñëw ñëpp ak ñi ñi nga xam ne dañ fa ñëw ngir soppe ak ñi fi ñëw ngir sëñ bi nekk seen seen kilifa ñëpp ñu ne leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen euh, yoolab ziar léegi suñ tubaab digg woon digg woon ci sasaara ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal defal ko ñëpp sëñ bi koy jiit tamit mu jiitu ko at yu bëree bëree bëree bëri ñu ànd moom suñu borom dool ñu ak kattan ba kenn ko nekk ñun li nga yéene ci ci sëñ bi yéene ko yéene ko liggéeyal suñu Mbàkke Madina jaar la ko njaboot suñu borom defal ñu ko waaw xam naa soññi ko moom weesuwul ñu xam ni ñun suñ suñ lépp euh, ci ci ci ci liggéey bi lañ ko war a ci ci lañ ko war a def ndax suñ buntu ci sëñ Tuubaa mooy mooy que suñu Mbàkke Madina kon war nañoo xam ni suñu lépp sëñ bee ko moom dañ ko war a joxe bam bam ba mu jeex tàkk bañ cee desal dara ci suñu alal suñ kàttan ak suñu wér lu am rek ñu bañ cee ñu bañ cee xeeb ba ñu yëpp bañ a bañ a topp jamono nga xam ne li ñuy gàllankoor yëpp ñu fexe ba ba taxale ko ak moom muy alal muy alal ak doom lépp ñu xam ne lépp sëñ bee ko moom te jaata googu nga xam ni dafa bàyyi ko woon ci saxaaba yi ñu dëgëral ko te wéyal ko te xam ni saxaaba yi lan joxe seen bakkan te ak seen alal te loolu moo gën a diis gannaaw ñun dañuy caf ñu am di ko joxe rek ñu xam ni loolu luñ ko def doyul kon loolu daal mooy kàddu yi soññ nga xam ne ñu ngi koy jox mbokki taal bi yëpp kenn ku ne xam ni li li ngay am ci sëñ bi sa yitte ak sa bëgg ak sa passif moom moo la koy may ngi teew ci ziar bi ñu Bey bàyyi ko Ahibaahil Khadim kon sëriñ bi ginnaaw nuyooyu ak ziar yi tey jii euh, waa Ahibaahil Khadim jëmal nañu kàddoog Cheikh Mouhamadul Moustapha gi mu njaboot gi yëpp doon benn tey fii ci ziar bi kaddu yi ak teewaay bi loo ci mën a tënkal. waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp tey ji baax mbégte mu rëy rëy ci bi nga xam ne waa Madina ñoo ko organisé te mu jot ñu def ko ngir ziare jëwriñ ju tedd ji suñu jëwriñ ñun ñëpp jëwriñ daa roklos gépp di Serigne Cheikh Madina euh, ñun waa Ahibahil Khadim di nusrati diinil qayyim nga xam ne sëñ Moussa Mbacke Mohamed moo suñu bunt ci sëñ bu ñu wowutoon sax bu ñu kenn wowutoon ñu war a bàyyi yitte yëpp ngir ànd ak ñoom ci ziar bi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk ndax ni mu leen yilife si Cheikh Madina ni mu yilife waa ko sëñ Mbàkke Madina gépp noonu la yilife waa ko sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma gépp suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Mbacke Madina dañuy yaari jëm jenn lañ ñoo bokk lépp ginnaaw bi ñu bokkee wenn wajur ñoo bokk lépp ñoom ñaar ñoo ànd jàng alxuraan ànd jàng xam-xam ànd def lépp bu ñu fu ñu leen ma koy yóbbu ñoom la ñuy boole bu suñoo teqalikoo ci zahir bu suñoo teqalikoo ci baatin moo tax nag noonu ñaari jëmm yi doon benn ñaari mbooloo mbooloo yi noonu la doon benn waa ko sëñ Mbàkke Madina ak waa ko sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma yaar moo tax nag lii daa mel ne ñun ñoo ko organisé giñ ñu teew giñ teew fii suñu xol sedd ci guy yi am mbégte baax baax baax baax dañ leen xamal ne lépp ñun la war xam ab soññe bu gàtt rek jëme ko ci mbokki taalibe yi ci ndono li nga xam ne ni mag ñi bàyyi ko fi ñu gën cee sóobu. waaw mag mi mooy Cheikh Moussa ci Sëñ Tuuba mooy mooy yilif mbooloo yëpp te lim dénkaane woon mooy doon benn rek daana wax naan fii ak doon a gudeel benn lu leen taxaat lu leen taxaat doon benn rek ci ne bis bu ngeen demee ba doon benn nag ba faj seen aaju kon benn waa ngoog dañoo war a doon benn dañoo war a jaxasoo doon jenn jëmm te Cheikh Moussa du ñaari kër genn kër rek. ngi taxaw ak euh, Serigne Ibrahima Diaw bàyyi ko kër Serigne Ibra ab tam moom Serigne euh, Modou Moustapha Mbacké di firnde rek niñ ko waxee léegi njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha lépp benn la kon jëwriñ tey ngeen ñëw fii ci euh, trent bi. ànd ak euh, taalibe sëriñ Mbacke Madina ci kanam sëñ Cheikh tey jéego yi soññe yi ak yëgeeg yi ak booloo googu nga xam ne nii moom la fi kilifa yi bàyyi woon lan ngeen ciy soññe bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu sëñ bi yéen tur ak seen sant di am mbégte ci teew fii nga xam ne moom lañ teew fii kàddu geen nag maa ngi koy wax ci ki nga xam ne mooy suñu kilifa di sëriñ Sawru Mbay di président daayira bi ma ne dama koo jiitu waaye li may wax ci kàddam laa koy wax kàddu yi nag moom weesuwul kàddu yu mbégte ndax euh, diggante ki moo jógee kër sëñ Ibra Absatu ak sëñ Mbàkke Madina ñoom benn lañ woon ndax ko xam seen diggante xam yi ñun bokk na ci yi nga xam ne ñoo fi war a ëpp ndax sëñ Ibra fi fàddewoon sëñ Mbàkke Madina fen la boo xam ne nii ñu bare bare xam nañ ko am na loo xam ne sax lépp di su ko wax ca kaw naa ab soññe lay doon rek ñeel mbokki taalibe yi ci gën a bàyyi xel ndono li muy booloo gi ni ngeen ko defee ni tey waaw ndax ndono li moom li ciy fàttale rek mooy kii ñuy wax sëñ Cheikh Lo daayira doon kenn ci waa kër gi néewaa na fenn fu ñuy dajee ci pencum Daaru Xudóos te néewul sëñ Ibrahima surtout nee woon na ko de bëgg-bëggu suñ Mourou Moussa de faaw maam waaye ñemee amee seen loxo ñam tawfeex la ñuy doon kon loolu sàmm ndono loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi indi kilifa yi itam ñi nga xam ne moom lañ bàyyi ci kër ga itam loolu toujours dañ ci soññu ñoom itam ñoom taxawaay boo xam ne nii waxtu buñ dee siyaare sëriñ bi ci seenu bu njëkk ci koor gi ñoom ñëpp ak suñu mbàkki Madina kenn du des kon nag li ci am solo mooy ñun ñëpp ñu commencé góorgóorluwaat takkaat suñuy laxasaay te ba ñu mujj posi bu mu réer kenn ku ci nekk taxaat si kemtulaay kàttan daal mu wóor na li ngay def bu ko ñëpp defee kër gi dox ndax kër gi moom kër sëñ Mourou saa moo genn kër la kees yi nag moo bari kii ki am fii kii ak ki am fii kees waaye lépp genn kees la muy suñu Modou moom rek mooy jëmb ji ñu ngi ànd ak euh, section Islaahu Daarayni yi nga xam ne ni dañoo bàyyeekoo ci réew mi ak bitim réew tey ji nag euh, ci ziar bu mag bi nga xam ne nii ñu ngi koy amal ci kanam seriñ Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina ngir waajale ko màggaluk Serigne Mbacke Madina 2024. Euh, sëñ ma buri wadd ngeen bàyyeekoo Thiès ànd ak mbooleem waa section cees ñëw teewaat ci bis bu tedd bi teewaayu cees seen yëg-yëg ak seen i soññe ci liggéey bu am solo bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi ñoo ngi siyaar ñun jàkkaarloo ñëpp di ñaan yàlla defal nu jàmmi ak àlla jàmmi àllaaxira may nu mujj ko rafet ak ngërëmul sëñ bi ci li nga xam ne moom la ñu yëngu sant bu baax a baax nag li ñuy soññee moom mooy liggéey boo xam ne ku ci yàlla boole ku ne nga war a sant bu baax ndax am na loo xam ni am na ko ñi ko xam buñ leen ko doon jaay ay milliards yu jënd ko liggéeyal sëñ bi li ñu li ñu daal ci liggéey sëñ bi nag noo ngi ñaan yàlla na nu daal ci liggéey bii di ñaa la nag sëñ Cheikh mu yàgg fi lool ci wér di ñaanal waajur mi sëñ Amadou Mokhtar mu yàgg fi lool ti wér di ko ñaanal sëñ sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ti wér lépp loo xam ne yéene nañ ko ci liggéey bi yàlla nañ ci yàlla defal lu kawe njort yi noo ngi ànd ak nag Njaga Sëy mi nga xam tey ji mooy président fédération bi jógee Thiès ànd ak sëñ Aliou Sëy ak Cheikh Ndiaye mi nga xam mooy trésorier daayira bi ànd ak sëñ Fallou Gueye noo ngi noo ngi waa yi ñëpp a ngi fii li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg daal muy booloo noo ngi si soññi ñëpp ndax sëñ bi lu ñu lu gën a booloo moo ko gënal. kon nag te itam moom liggéeyul kenn liggéeyul boppam dara nee na lépp lu ñuy def nañ ko def ci kër yii muy kër sëñ Mbàkke na yi ñoo ñoo ngi soñ ñi ñëpp nag xam ne liggéey yu ñu liggéey liggéeyaloon ko sëñ Cheikh liggéeyaloon ko sëñ Ibra sëñ Mbàkke na leen koy liggéeyal kon bépp liggéey boo xam ne jóg na fii noo ngi ñaan képp koo xam bokk sëñ Mbàkke na rek sa sa sa ñax war na cee dem noo ngi ñaanal ñëpp. sëñ euh, Mbacke Fall ngi bokk ci mbooloo mi nga xam ne ni tey ñooy euh, ziare tey jii ñu gisaat mbooleem taalibe yi sëñ Mbacke Madani yi bàyyi ko fu nekk ci réew mi bu bitim réew waaye lëkkaloo ak mbokki taalibe yi rawatina ñi aju ci sëñ Modou Moustapha ñëw ànd ak ñun ziar bu am solo bi jëf ju mel noonu ban jàngat ak ban soññe nga ciy def si jëwriñ. Euh, tey ji ku fi teew xam ni la Cheikh Mouhamadou Moustapha Khadim doon ñaan tey am na sëriñ bi dafa waxoon ni yaa rabbi ijaal senegal Sénégal wa wasam lañ ma yow yalla na nga def mourid yep ñu nek ben te bo len defé ben ba paré nga ar len Cheikh mohammed Sow daan wax ni li ngeen bëgg lépp adduna àllaaxira mi ngi sama loxo waye duma len ko jox ndara da ngeen doon ben bu ngeen nekkul ben ci leen di ben lay nek ba ngeen doon ben ma jox len ittihad go nga xamni Cheikh mohammed Sow yittem la won Serigne Cheikh Amadou Mbacke ngeen defal ma def ci yittem jep ak rakam yu tedd ya tay loolu feñ na ci eut bi ci ëttub Serigne Mbacke Madina bi ndax ndax tay ji mbolam buntu kër Cheikh mohammed Moustapha yi li ko tàmbalee ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ba ci Cheikh Mahamadou Fadal ba ci soxna Mariamu Mbacke Faati Mariama Lo amul benn kër bu des ñoom ñëpp ñëw nañ te ñëwee nañ pësteef ñëwee pas-pas ngir amal ab ziar xam ngeen ni ziar nag duñ ci duñ ci guddal waaye doy na sëkk la Serigne Touba waxoon ni képp ku ma ziyaare war nga liggéey ma suñu borom jéggal la te ziar bii ñuy ziare sëtam bii dañ koy dugal ci lam waxoon ni ya tan tan ba na zuriyatan tayyibatan tujjadidu nahjal nahjal Mustafa tajtahidu yow sunu borom dag ma defal seur yo xam dañuy yeesal diine ku ne xam ne ni Serigne Cheikh mbake Madina ku yeesal ngirum Serigne mbake Madina te ngirum Serigne mbake Madina moy l'islam kon ziar bi buñ ko ziaré Serigne Cheikh mbake Madina day melni ziaré ziaree nañ ko Serigne Touba te Serigne Touba ñaanon ne ne ñako fekk sar sar ziare ko suñu borom jéggal leen takal leen bakkar inna allazina ila sar sar qad hasadu ziyarati farahu daarin aw zaara waaye li ci gëna yéme nak tay moy bo téwé fi da nga xamni ne yoonu murid gépp téw nañ kër Cheikh Moustapha gépp teew nañ kon nun li ñu war a mën a gën a yittewoo mooy gën a waat ak bennoo gën a góorgóorluwaat ndax tey gis naa fi mboolem njaboot Cheikh Mouhamadou Moustapha njaboot Sëriñ Mbacke man ne gépp teew nañ kon discours daaru xudóos muy siaaru daaru xudóos loolu mooy ittihaad mooy bennoo bennoo gi nag nekkul ci col gi rek waaye dafa nekk ci jëmm yi ndax col gi mën naa wuute waaye xol yi moo nekk benn asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ cheikh mbakke ibnu sëriñ mbakke madina ibnu cheikh mouhamadinil moustapha ibnu xadimil moustapha ñu ngi lay nuyu te di la siyaar bu baax baax di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te mu ànd ak wér ak tal ak man bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barki sëriñ Tuubaa kon ni ko mbokk mi waxe léegi kilifa yi nga xam ne bi ñu yëgee ne kët ñoo ngi waajal siyaare ji sëriñ Cheikh ñëw nañ fi bokk ak moom bis bi ñu jàll ci daayira yi nag jiital ci daayira yooyu fédération nationale bi nga xam ne sëriñ Ndiaga Sey moo ko jiite waaye ci ndigalal sëriñ Cheikh Mbacké gaynde mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey fédération bi yépp ci loxoom ak soxna maami xayra kon sëñ Ndiaga Seye Thiès ak ñi mu àndal ñëpp teew nañ fi daaira daaru xudóos yi diiwaanul muridina sëriñ Ousmane Mbacké jiite ko teew na fi ahbabul Moustapha sëriñ Bay Longoor daairatu wilaya sëriñ Cheikh Diop ak soxna Fati Xarilo ahibbail Qadim sëriñ Diop Makhtar soxna maam Bousso Mbakke Abdoul Aziz diwaanul kër sëriñ Mahmoudan sëriñ Talla Diop jiite ko Majmuu Nourayni bu sëriñ Cheikh Ali Baye Cheikh Lo jiite ko Mawaaridul Asfiya bu sëriñ Ahmadou Tindodi Ahmadou Diankhar jiite ko Assalikina bu sëriñ Saalihu sëriñ Saalihu Fall jiite ko soppay Xaadim bu kër sëriñ Ibrahim sëwru mbay jiite ko at taawun fi sabilillah bu sëriñ ahmadul muxtaar sëriñ abdoulahi gay jiite ko daaira sëriñ xaadim sëriñ abdoulahi ka jiite ko daairatu sëriñ fàllu moustapha sëriñ fàllu loo jiite ko kàddu yi nag xam naa du gudd kàddu yi cant rek la li ci xam ne mooy doon ay kàddu yu jëm ci mbokki taalib yi ak liggéey bi koy baye ak serigne Cheikh Lo mi nga xamné moom ñoo bokk liggéey bi euh, muy mbokk mu am pastef ci limi def ci tambali ba ba légui mu gi tankam euh ñu dañuy am bi ñu may ñu ci rawatina ñu wax ne doon nañ dara ci njaboot ji loolu sëriñ bi ñu ngi lay seeti suñuy sant euh, muy cant yu wér ci ñun di ko sant yàlla di ko sante sëriñ Tuubaa waaye di leen ko sante ndax nu ñu fi mën a mel ak nu ñu mën a toll lu ngeen waxut jëflantewu ko jëflantewu leen ko ak ñun wan ngeen ko nu gis def ngeen ko ñu gis ko bëgg a dooni taalibe bëgg nekk ci ndigal di moytu taara rekk mooy suñu yitte mhm. loolu it ngir ñu man ko de faw ñu am saa su ne lu war a def ci suñu xel bañ koo bañ wutal lenn lu ciy taa lu ci bokkut donte ne lu jafe la yëngu yu metti yéeg yépp day sëriñ bi lu baax rek lañ jublu lu baax dong lañu bëgg ci loolu dong mënu tax a jóg ah, ñu teew fi nag teewal fi njaboot seen Moustapha gépp di la seere ni ku fi ñëw ci jëmmam xamal ne xolam a ngi fi ñépp jox na seen xol ngir jëm yàlla ak bokk ak rafetal gi nga xam ne mosoo jóg ci di ko def jëme ci njaboot bi ak ci mbokki taalibe bi mu mel ne ñi fi teew tey doy nañ sëkk ci seede Eh, jataay bii ci kër Cheikh Moustapha xam naa li ci des mooy di sant Serigne Cheikh mi di sunu kilifa di la seere nag ne kilifa bu mat kilifa la man de maa ngi seeri mbokk taalib yëpp ne leen bari na lu may lu may xool ci moom ak a jéem ci nangu kilifteef waaye ci ak woyoflu ndax ñëpp xam nañ ñëpp it xam nañ ab cëram. dëgg waaye foo gisul sëriñ Cheikh Madina gis fa sëriñ Cheikh mu wër na ci ndigal rek lay dox ma dellu seen sëriñ bi ne moom mii day mat nu sëkk sëkk ab roy waay que Cheikh Moustapha nag day genn rek jëm yi it jën jëm dong dong la wuutu ci kër gu ne. ñu ko fay xool ñu seen bokk taalibe yi ne li jëmm yooyu ñoom ñëpp dina ngeen xam ne dara ñorul leen du bennob kër gi bennob lislaam bennob yoonu murit loolu dog muy seen yitte ci li ñuy dox ci li ñuy wax ci li ñuy yëngu sëñ bi kon ñu yemale foofu kàddu yi di yóbbaale nag mbokk yi fi teew yëpp mbokk yi Daaru Xudoos yëpp di ñaan yàlla sunu boom yàggal sa taxawaay lool yàlla na yàlla dolli ak wér yàlla ngay yàggaat lool ci dolli ak wér dara ji sew soit njaboot gi yàlla na yàgg yàgg sa ginnaaw te euh, bennoo gi du du doon lu wér a lu ñëpp mën a gis ñëpp mën koo dund yàlla na ko yàlla bool defal jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum ñu waxtaan tuuti ci sant ak soññee ndax Serigne Mbacke Madina danoo yaakaar ne képp kuy sàkku ngërëmam jaar ci alquran gëm nañ ne di ko am bëggoon na ko safoo na ko saxoo woon na ko ci loolu la taalibe yi dajaloo woon waxtaan ci sunu biir ñu ne nag ñeen wut daal di alquran Serigne Mbacke ma dina jun bokk ñun ñëpp loolu nag Serigne Cheikh mu tedd nii te baax yombalal na ko lool jàppalal na ko jox ñu béréb bu ñu ko def jàppale na ci zaahir jàppale na ci baatin ba suñu borom dogal tey daara ja alhamdulilahi rabbil alamin tàmbali na liggéey bi lu mu bon bon na ci ñaari at def nañ ca ñeent fukki million yu tegal waaye nag xam ngeen ne yoon murid amul wàcc lépp loo def ba noppi da ngay bëgg a defaat leneen def nañ fa bâtiment bu baax bu dongo yi dëkkee def nañ fa mbaar mu baax bu ñuy jàngee alxuraan léegi nag ñu am beneen bâtiment bu ñu fa bëgg a taxawalaat ngir sëñ daara yi seen dëkkuwaay ak tamit jàkka bi ñu fa bëgg a def bu xale yi fa nekk di tout tànkee di julli waxtu juróom loolu nag moo taxoon ñu bëggoon ñëpp bàyyi ci xel kenn ku ne gën cee jaayante waat suñ kem kàttan ngir jàkka joojee ñu defar ko waaye tamit bâtiment biñ war a defar si daal yi tamit ñu defar ko waaye di sant bu baax ci taxawaay bi di gërël bu baax ci taxawaay bi bokkitaay la bi sëriñ bi wax dëgg yàlla ba yëkkatee liggéey bi xam nañ ni jàpp zahir am na jàpp baatin am na waaye taalibe itam def na seen kéem kàttan kon yéen ñëpp ñu leen ci xaaraat waaye tamit ni ñuy def di jël dongo yi dul dara tamit nii ñi li si ëpp dana ko jaayante suñu biir waaye tamit képp koo xamante ne bii bëgg nga fa andi sa doom lañ lay laaj taxul mu diis te taxul mu metti waaye tamit lépp rek ngeen liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan koo xamante ne bii noppi nga ci rek ñun ñoo ngi fi commission lañ boo xamante ne bi ñoo yor daara ji incha allahu taala di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xaar ñëpp ci daara ji ngir sàkk ci ngërëmul sëriñ bi defal ñëpp ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi yi noo ngi jégalu suñu borom bu baax di jëlee cant mu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesalati suñu taalibi ak suñu yaakaar ak suñu doole ci sëriñ Tuubaa xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa kàddu yi nag sëriñ bi noo koy teg ci loxob sunu rakk sëriñ soo màddina ak loxob sunu jarbaat soxna Xadi Mbàkke ñu tegal ñu ko ci loxob sëriñ Cheikh Gaye ñu tegal ñu ko ci sab loxo ndax ñoom ñaar ñooñu mbooloo mi xàmmee nañ leen lool ndax seenub coono te bëgguñu lu dul rekk mu baax ak liggéeyal sëriñ Touba moo tax nuy njëkkati kàddu xam naa sax dana diis waaye rek nu jéem ndax noonu suñ borom dafa wax ne istajibu lillahi wa li rasulihi isa daakum lima yuhyikum wuy ji leen woote bi yàlla bi nga xam ne ni ak yonente bi bi nga xam ne moo di dundal nun nag lii moo ñuy dundal ndax ñun sëriñ tubaa rek la nu am moom rek la nu yaakaar te fas yéene doon lenn lu dul yëfam bu ñu suñ borom suturaalee nag ba la waykat ba waxoon ne lillaahi qawmun isa xàlloo bi mansilatin xàllan na daa waxalat fi jawi alwaaru tastaquhum kullu adin yansiluna biha ka annahum bi baqeel ardu amtar suñ borom day am jëm jëmm xamne ni fuñu wacc wala fuñu ñu teew seenu xewal day melni ab taw kon nak sunu suñ borom xewale bañu ñew bokk ak yeen jotaay lolu sant nañ ci bu baaxa baaxa baax ndax ñun day dañuy wet dañuy netti ne dafa am benn doomu Serigne Touba bo xam dafa am ku tok ci wetam am ku mu tudd kooko ne ko tuub ko xana xawma ne koko dafa bok ci assemble maxfira mu ne ko luy assemble maxfira mu ne ko assemble maxfira de Serigne Touba rek a leen am mu ne ko mooy ñan mu ne ko mooy ñi nga xam ne lu ñu mën a def ci lu ñaaw sax suñ borom lu rafet leen koy bindale te ñun xàmmee woon ci kan la ci waaye xam nañu ñooñu kenn jiituwu leen ci kon nag ñun Mbàkke li ñu suñ borom wax ne faqusma aataytu ko wakkun mina saakirina loolu suñ borom jox na ko téye di ko sant kon ñun duñ leen yemane kenn jàkkaarloog yéen lu mu tuuti tuuti rëy na ci ñun ndax da ngeen ñuy dundal. ben rek moy li ñi nakari moy la waaje waxon serigne fallu Mbacké mom serigne Touba dafa ne ko yor santuk nit mu ne ko luy santuk nit mu ne ko nit de dalay sant bay joy te jariñ dara nit mere la bay joy joy joy te la dara waye nak li nga xam moy mooy sunu cër moom la ñu man danañ ko def moy lan moy ñaan ñaan googu nak Mbacké bu fekkon ci na dañ ko mom ak wër lañ ci ko jox ak gudd fan ak tal ba nga jël ci ba doyal lu ñu lu ca ak ñu jël suñ ko tamit ñun ñëpp kenn ku ci ne dana wàññi wàññi ci aw fanam jox leen ko yéen sunuy kilifa ndax ngeen gën fee yàgg ak ñun ñun ci loolu rek la dund ñun Serigne Touba la ñu am moom la yaakaar moo ñu defal loo xam ne kenn mënu ko te ci loolu la ñuy dox ñun nag ba ñu gënee adduna ñu tudd ñu Serigne Mbacke Madina lañ bokkoon Serigne Mbacke Madina ñun turandoo yi buñ faatu woon ñu suul ñu sax dañ naan fii kuñ tudd Serigne Mbacke Madina moo fi tëdd te bokk ci Serigne Mbacke Madina loolee lu rëy la duñu ko xeeb mukk ndax kenn mënu ko ci mbaax suñ la fi bàyyi leen nag ñu ñëw yow ngay serigne Touba di mam Cheikh Anta di jam Daam Abdourahmane Lo di maam Cerno ibrahim lolé mbacké alhamdu rek lañ ci tek mo ngi lay ñaanal nga gudd fan té tal ko té man ko barké serigne mbacké Madina serigne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli yi bokki talib yi no ngi len di nuyu kenn ku ne ci turum ak santam di jital ci nuyo bi sunu sang sunu sëriñ sëriñ Cheikh Mbacké Madina sëriñ Cheikh njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha lañuy wax ñu ñëpp ñoo maase ñëw ci biir njabootu Cheikh Moustapha ñu fekk si ci biir njabootu Cheikh Moustapha njabootu sëriñ mbakki Madina ci bis bi nga xam ne dañ ko baaxoo at mu jot mu sukk fi sa kanam di beesal sunu njëbbal di beesal sunu cofeel di beesal sunu yaakaar ci sunu diggante ak sëriñ Mbàkke mel ni ci yow di la siyaare nanu ko waxee woon rek te sëriñ Mbàkke mat wax na ko léegi siyaare bi liñ ci fas mooy nga wér yàgg fi lool nu ànd ak yow ba naan yi nga xam ne naal nga ko liggéeyal ko sëriñ Touba ndax sëriñ Touba rek la ñor naal yooyu nga naal ñu ànd kook yow ba na ko bëggee nga defe ko ne ci barkeb sunu sëriñ sëriñ Mbàkke Madina mhm. ñu lay seereel ne njabootu Cheikh Moustapha gi nii ko sëriñ usmaan waxe noone rek la demee buntu këri yi Cheikh Moustapha yi yëpp a ngi fi tey dañuy mën a wax ne Daaru ko Xudóos ñoo sukk fii ci sa kanam ci njiital sëñ usmaan Mbacke moo jiite diwaan bi ndigal li nga ci joxe woon it ci diwaan bi muy lii nga xam ne sëñ Ahmad da ko joxe muy diwaanu dina boole mbooleem bunti kër Seex Muusaa yi njaboot gi it sëriñ bi maa ngi lay seeral ne njabootu sëriñ Mbàkke Mbënd jëpp taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne taxawaay mënu ko féete kaw man noonu la koy seeral ndax lépp luñ ciy jëf ci sama loxo lay jaar door ak si sëñ Ousmane kon noonu lay xamante kon ñoom taxawaay boobe mat da sëkk sant daal daa mënta paase sant waaye daal jotaayu tey bii sant rek lañ ciy def te ñaan lii yàgg lool lool mm-hmm. te mu ànd ak wér mm-hmm. ci barkeb Sëriñ Mbakke Madina mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbooloo mi yëpp di leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di ci jiital ñii mu bokkal Cheikh Mouhamadul Moustapha te teew ci jotaay bi nee na ñoom ñëpp mi ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm nee na gannaaw bu loolu wee itam daayira bii di islaahu daara ni mi ngi koy mi ngi leen di sant bu baax a baax ak mboolem daayira yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew sëñ bi nee na ngi leen di sant te di leen ñaanal ndax nee na coono yi metti na ñu ngi ci yëngu guddi ak bëccëg waaye loolu lépp di Sëriñ Tuubaa def moom sunu borom ak jëwriñam ji mooy rasulullah sallallahu alayhi wa mu ëpp lépp nee na kon nag coono yi nu mu mën di toll waruñu koo gis waruñu ko yëg sant yàlla rek moo ci war nee na mi ngi leen di fàttali li ñu fi dajale. muy ndigalal sunu borom li mu sant ngir ñu jaamu jaamu yàlla dëkk ci ndigal bàyyi tere yi ak dimbalante ci sunu biir tey jéggalante tey tey maandoonte ci suñu diggante suñu ko defee li sëriñ bi wax ñu jaar ci tey ak ëllëg lépp da yéwén te benn coono du am nee na yàlla na sunu borom dimbale ci loolu ñu sax ci bañ cee jóg mu boole ñu dimbale defal nu xéewal yu nu ko mën a jaamoo te boole xol yi te saafara ràgg yëpp jërëgeen jëf kon mbokk yi jërë ngeen jëf lii mooy ziar bu mag bu am solo bi nga xam ne ni tey jii àndoon noon ko ak yéen fii ci Touba Darou Khoudoss ci 30 bi ci kër Serigne Cheikh Mbacke Madina nekk ci boppu njabootuk Serigne Mbacke Madina ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér niñ leen ko waxee woon ci njaalbeen gi ngeen seetaane ko noonu mooy ziar bi nga xam ne ni at mu jot mbooleem daayre yi fasantikoo ci kër gi waaye lëkkalikoo ci islaaxu daayre ni dañ ko amal ci kanam xalifaab Serigne Mbacke Madina ngir waajale ko nag bisub màggal gi di bi nga xam ne ni ci la ñuy ko ak a ñaanal Serigne Mbacke Madina ibn Cheikh Mouhamadul Moustapha ibn Khadim Rasoul kon tey jii ni ngeen ko gisee seetaan ko ci reportage bi ci kanam Serigne Cheikh mboolem taalibe yi bàyyi ko ci ay diwaan yu bëri ci biir réew mi ba bitim réew ñëw nag nin leen ko waxee ni ngeen ko gisee joxe seen ab ziar yeesal seen ak njébbal yeesalaan seen ak jaayante diggante ak seen wasila ngeen dégg kàddu yi am solo yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci daayira yi bàyyeekoo ci biir Daaru Xuddoos bàyyeekoo ci cellules yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo ci biir réew mi waaye bàyyeekoo ci ñi nga xam ne nii ñoo doon wax ci kanam sëriñ bi waaye li ci ëpp di solo mooy kaddu yi bàyyeekoo ci sëriñ Cheikh Mbacke Madina di kàddu yu soññe kaddu yi gën a soññ nit ñi ci jaamu yàlla li ci gën a fës ren ji nag muy maandu kon maandoo ngi noonu bokk ci euh, jikko yi nga xam ne ni bu ko ab jullit euh, amee rek mën na ne mën naa mucc ci yu bëri rawatina fii jamono toll ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci ànd gi ak safoo gi ak topp gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu